waaw salaamaaleykum mbokk internet seen yi ñu ngi leen di béggee bu baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay ngeen gis ñu ñuy waxee sax ñoo xam ne dañu am coono coono bi nag démb moo ko waraloon muy combat royal bi nga xamante amoon na diggante Ama Baldé ak ki nga xamante ne mooy Modou Xarañ Lo waaw te nag ñu ñëw nag fi nga xamante ni mooy pikin boo ne Pikine daa daa wax Ama bi nga xam ne mu doon ja jagoonte démb ak ki nga xamante ne mooy le roi des arènes Modou Lo mais dana am ku ñu toogal koo xamante ni muy beau frère Ama Baldé muy grand jibi ñëpp xam ni moom si kër gi la dëkk bokk si kër gi di di denc magu Ama Baldé kon il fale ñu ñëw waxtaan ak moom laaj ko lamb dem bi lu ñu ko dundee laaj ko aussi combat bi démb lan lan lañ si daj laaj ko aussi après défaite bi nga xamante ni moom la Ama Baldé am mu bëri ak Modou yan jafe-jafe lañ ci am ak yan ak nan lañ ko nan lañ ko toogee ak nan nan lañ ko dundee may bàyyi grand ji bi mu nuyu nuyu mbokk internet seen yëpp. di ko jaar di ko bëggee grand ji bi maa ngi lay bëggee bu baax di la jaar di la jox su wàccuwaay. yaat ma maa lay fay bu baax a baax euh, démb de comme ni nga ko dee waxee rek démb moom li nga ko dundee métti na trop mais sant yàlla parce que mu xale la demagul fenn euh, l'avenir est devant lui parce que dafa teel a dugg si làmb rek moo tax mu waral li yëpp am euh, mu doon nag lenn loo xam ne ñun démb defee da nga ko santee suñu borom bu baax a baax parce que tamit mënoon na fee gën a ñaaw te demewul noonu. mais dafa am lenn loo xam ne euh, vraiment doon na luñ su naqari torop loo xam ne lu am si làmb ji la te jaru ko fii ñun Sénégal la li fi nekk ñun noo ko moom nit ki am na droit fu mu far ne fii laa far mais warul tax guerre bi di am démb dara di am démb parce que démb li mu xewoon stade vraiment c'était extraordinaire ñun ñi nga xam ne noo nekkoon si si si sax vraiment dañuy toog sax ñu lii lu xew lan moo xew parce que ay policiers ñëw barricade la bàyyi beneen mbër mu nekk à l'aise euh, di def li muy def lépp yow nu barricade la fatt la ba nga xam ne yow mënoo def yéen nii yenn gàllaaj ñu ne doo dugg te waa CNG tamit aussi tamit nit bi doo dugg lii doo dugg ak lii xam ne benn butéel xam na ko mais sa nit bu war na mën a bàyyi keneen ko gàllaaj mais day toll si géej gi kii ñi bëgg a bloqué buntu bi ak affaire yooyu te affaire bi question nga xam ne léegi affaire bi tamit mënatul nekk tamit day am problème loolu aussi tamit waa CNG war nañ si xoolaat bu baax te seen challenge bi ñu def tamit aussi tamit bu ñu gënee soo xóot ci waxtaan bi tamit war nañ si wax. waaw léegi rajo bi avant ñu egg si stade bi ama waajal na combat bi waajal waajal bu am solo le roi des arènes bi mu ni wax wax na ko si open place bi Pikine xeexlawul kenn. doolul kenn xeer day dem jëlee roi bi mais nañ gis ñëw ama bëri bëri boo xamante ni tey lu mu bëri Modou Lo ba wër Modou wër ko romb ko ay coup presque ay 22 coups yoo xamante ni mm-hmm. avant booy bi di dugg instant yi presque daanaka Modou dóor ay coups yu bëri mm-hmm. mais ama lu xew ba làmb ji mu bëree ko noonu la moo xew aussi mm-hmm. biir stade bi aussi li ñu wax noonu ba tax la tey ngeen ñàkk combat bi parce que ñun euh, doo comprendre xëy na peut-être gars yi li nga ko teg am ñoo xam ne dañoo jiital ñu wax waxu politique la moi affaire yi peut-être nous sauter qu'on non. man maa ngi je suis de la paire ah, c'est bu ko beaucoup am na droit fu bu fas parce ak lépp am droit boobu c'est pourtant on conjugue très bien on se respecte mutuellement quand le Sénégal dafa war am ay pratiques yoo xam ne euh, euh, benn certain presse da nga ko a une yenn façon nit ñi da nga parce que Sénégal un Sénégal la lamb ji bu c'est si politique parce que lamb politique xaju si en moom li mu préparé combat bi ñun ñu ko quand xam na ne préparé nous ko sérieusement sereinement sans pression sans dara vraiment préparé comme ni mu ko war préparé combat bi defe naa li mu ko gëmee sax si combat bi mus ko gëm si ay combat parce que man musu musuma ko gis mu déterminé woo si nii nga téye nag sa làmb entraîné li nga war a entraîné ñàkk sa xaalis toog 5 ans nu lay traîné loo bëri woo ba pare nu retourné di la def ay bases yoo xam ne tamit dafa xaw a doy waar euh, tamit yooyu tamit euh, yaat ma c'est à c'est à déplorer parce que ñun suñu suñu Pikine Ama Baldé la am di ko représenté dignement démb wane na ko ba bu ñëwee si làmb tamit aussi tamit wane na ko kon nag ñun suñu mbër li mu préparé préparé na ko encadrement bi li mu war a préparé préparé na ko mais nag ñu comprendre lu démb vraiment lu xew si stade ba comprendre ko par rapport ak attitude yi nga xam ne service de police respecté naa leen trop c'est des c'est des juum nañu commissaire fa nekkoon ko monsieur le commissaire ak lieutenant fa nekkoon ko mais li ngeen fii mun naa ko

si ginnaaw Ama la nekk. mais grand ji bi fu ma dégg nga waxee ça veut mooy Ama te boo xoolee lamb ji da ko préparé mystiquement. moralement mentalement. ñu gis Modou ñëw takkul benn galaaj. kem comme kuy contact noonu la ñëwee. takk ngemb ki wisaar takkul benn galaaj. te Ama dem wut galaaj ñëw. mu ñàkk ñàkk combat bi loolu psychologiquement na la leen def. psychologiquement man li may def euh, ba tey ma comprendre ma ko en tout sincérité je n'arrive pas à consommer loolu. parce que ñun combat bi li ñu si daj mu si côté mystique muy si côté préparation muy si côté euh, ñàkk suñu mbër kenn xamul lu mu toll. ama tamit li mu si sacrifié wu def ci tamit ama moom tamit moom moom bi mu daanu sax il c'est un homme moo tax xëy na peut-être réaction bi demewul noonu mu wan c'est un sportif génn stade bi naajement dem ñëw kër itam dalal ñëpp ne lii ak lii la dañ doon daa bëri de daanu ku fi jooywal ko dara ba baal ma la ko kon nag ku dal gëm yàlla la ku xam ne ni ndool gi dal na si mais nak ñun ñi nga xamee nooy mag ñi dinañ ci tok waxtaan te dinañ si jël ay ay ay mesures yu claires parce que lii mënatul continent ah. duñ bayyi suñu mbeur mu am carrière am bu mi def nu bëgg jël carrière am hypothèque ko si di wax diko ko féetale affaire politique loolu duñ ko def ku nekk am ko droit faral ku la neex man maa ngi faral ku ma neex faralu ma ki mu faral te pourtant on conjugue on est ensemble parce que c'est le Sénégal nit ki am na liberté opinion ne man ki la faral c'est pas interdit te et puis tamit euh, autorité vraiment bu dee au côté de Pikine ñi fi war a gërëm si Pikine euh, Mamadou Gueye lañ fi war a gërëm parce que vraiment tamit jàpp na ci combat yi indi li mu war a indi yëpp jàppale Ama ba jusqu'au bout Isaaxa Diop tamit même chose ak Cheikh Tidiane Thiam man Cheikh Tidiane Thiam laay àndal di politique tamit def na li si war ci moom à part ça amul benn autorité bu ñu gis autorité bu ñu gis. te lu pare nga bëgg jël affaire yi teg ko si politique li nga doon jàppale nit ki doo ko jàppale wala li nga doon def nii doo ko jàppale bu amee bis boo xam ne Pikine na ko ewal mu toll lu dayoo comme combat royal dafa war a jël këral yëpp ak lépp teg fële indi li nga xam moo war a indi parce que xaalis bi ñu indi ko dimbali si commune c'est pour la commune te après Ama Baldé représente la commune représente Pikine lu dul Modou Gueye ñett yooyu mu wax noonu amul kenn koo xam ne ku ñëw jàpp si combat bi la à part à nga xam ne c'est le volontariat pour ñëw jàpp si combat bi voilà loolu moom ñaawlu naa ko tey dañuy ñëw aussi ki nga xamante ni dugg na ci làmb ji ñu gis ko euh, les forces de l'ordre def ko dóor ko ay dóor yu metti mm-hmm. tey fu mu ndax ñi naan yóbbu nañ ko ñi naan yóbbuwuñ ko mais est-ce mi ngi ci jàmm. non ji bi mi ngi ci jàmm pour le moment xëy na peut-être dafa nekk fenn foo xam ne moo tax mën na ci wax xëy na peut-être ay soins la nekk mais foofu tamit dama koy déplorer aussi tamit euh, nit ki ak lépp lu mun demee euh, ji bi dafa jege aama moom moo koy moo yore préparateur mystique am moom mooy nekk ak moom. c'est un boy très brave démb xëy na peut être dafa dem ba mënu ci muñ affaire yi mu def lolu parce que nit ki tam far dafa graw ak ko xam ne da ngay nek mom chaque jour diko préparer dafa graw han ah, motax tax mu réactionné noonu et puis c'est tout à fait normal man mi tay su ko mënoon te nekk nu mag da nga def parce que mënul won tam gis tamit genre humiliation mënu koy gis ba pare mu ko gis te xamna ni li mom li ñu war préparer na nga ko baax ñëw ba sax di buut benn benn ceres nu ñak ci combat bi te pare tous les plans man lolu moma jaxal musuma wax si presse mais li tax mo war tay lolu loolu moo tax ma ko sama xol neexul si loolu. waaw déggee mooy da ngeen préparer téye combat bi ñëw ñak ko ça veut dire lo bëgg wax fofu je te jure sur le Saint Coran danoo téye combat bi nii. billahi wallahi wa taala téye ko. mais aussi gis nañu Ama Baldé takk dara. arbitre bi mu teg ko loolu loolu mu takkoon mu teg ko loolu lan la. non li mu takkoon teg ko ci téere la bok mais comme que CNG nee nañu loolu c'est interdit parce que mën na la si jàpp xoj la ci waroon def la dara mo taxon xëy peut-être pratique boobu boobu mën na ko pardonner mais nak Pikine tamit aussi euh, il faut nous nous tek affaire yi yoon parce que Pikine tamit bu wax 100 100 et 100 pour cent si lay nek tam aussi c'est pas intéressant Boy Niang combat am deux mois si dess Eumeu sen on comprend dimanche la wara a mais Boy Niang deux deux deux mois moko ko dese Boy Niang waruloon toog ne sama doomu ndey sama rak la fanan nañu def nañ lii ba paré mu retourner ñewul open pressu u Ama Baldé ba paré encore nitam

parce que mënoo ni jàpp ni kii sama doomu ndey la nooy fanaanoo noo doon defandoo lii noo doon defandoo ndaa retourné mu xew lu bis bu toll noonu combat royal nga yow nga après war a bëre gan googu moo tax ñëwoo ah loolu est-ce que moom moom nga dàq moom nga gis nga dàq ko barki Seydina Mohamed bu dul moom yàlla ma gisante yoom xeyam man du ma caaxaan presse man si doo ko wax bi affaire amee ba de presse su ñëwee dama interview sax du ma wax mais lii da nga ko mënul muñ am na affaire yoo xam ne c'est trop dans trop c'est trop Pikine bi li ñuy wootee li ñuy li ñuy xeeñ na nga koy mbubboo parce que yow mënoo wax ni diw sama xarit la diw sama doomu ndey la diw sama réer def si sorti nit ñi dem ñu médiation gauche ak droite di ñëw di la woo fii di waxtaan Eumeu Sène ak ci Eumeu Sène on comprend Pokola bi mu xew xewlee ñëw na Eumeu seen kenn sikku man bokk personnellement sikku ma ko mais boo ñaan je déplore li muy def waaw bu nekk Pikine nekk Pikine di woote cent pour cent 200 pour cent gis ñu mu ñëw quoi loolu moo leen jaaxal yéen mais loolu moo warul nekk ama da koy ama moy mbeur bi nga xamé ci Pikine ah defe naa ñu da nga ko bëgg def comme genre paniche quoi diko ko jékki diko guerre ak yenn guerre lool lool mom day arrêté té on a pris nos nos décisions té day arrêté té bu dee moom toll na ko ba nga xam ne animé animé na ko je répète une fois diko ko répéter a répété na ñëw nu bëre nu jël ko bu paré combat contre Modou ñu jël ko. mais loolu Pikine day tas. non na tas amul amul sincérité na tas lo loo xam du continuer dang kay koy teel tas ku nekk yom yóbbul sa kër baay waaw parce que am na yenn xam ne trop te fii ay Pape Diop euh, père Pape Diop je le comprends parce que dafa feebar kii démb njaka ñëw na euh, euh, Tidiane ñëw na ñoom dañ leen di remercier fay boobu dañ leen di remercier parce que Fallaye dañ dafa dafa dar seen papa ñu ñëw en reconnaissance fay ko li mu leen moom fii Pikine bu écurie taxawee fii Pikine yëpp ba ba si ay États-Unis yëpp écurie Pikine moo fi amoon muy Fallaye muy muy muy muy ba Fallaye foofu la nekk kon fa la doon entrer fa la doon defee lim kon ñoom bu nu war fayoon naar ba xorom ba du demee nii doom du ñëw nu jàpp du ko def ay bases yoo xam ne affaire yooyu Mansour Diop bi nga ko woowee téléphone wax ko ko lan la wax damay xaar nu woo ma loo bokk nan la si woo koo xam ne saal boobu nga nekkoon di ànd ak Gilles di ànd ak papa papa Balde benn dem si yàlla bi yàlla na ko yàlla yërëm mi papa ay sakom nuy àndal defandoo lépp ñoom sakam ju deux cinq kanam seen ngénte ñoo ko ngénte def ko lépp fii Tafa Sow moo fi sincère Tafa Sow Tafa Naar ñooñu dañ leen di remercier Malaw mu mag dañ leen koy remercier parce que ñooñu bu ama xewlee dañuy tàggoo seen sago ñëw jàpp si te écurie Pikine bii bu sottaatee ba sotti toll Tafa Sow génne si pièce maîtresse Abdou Bakhoum ba nga xam ne sotti na ba tax écurie Pikine dafa naroon tas ñoom noo ko relevé waat jox leen ba njaka caam jox leen ay blouson ba ba ba ba toog si waxtaan si pour mun a ñaar si combat Papa Sow boobu la amee kon nag ñun on comprend te bu nu wax loolu quoi yenn détails parce que tamit ñun tam xamal na leen ne tey bu nga waxoon ngi dégg nga ni ki ñu dàq si camp Boña ñu ngi ñu ngi wër si ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi force wéyu béy ñi kër Boña lañ ko saccagé est-ce que loolu am na. mais loolu maa ngi koy dégg si booy yi dégg naa ko léegi information boobu ne da nga ko saccagé dañoo saccagé te et puis naa ko feneen. Ah déggaat naa ko feneen tamit c'est pas la vérifié naa ko xool ko xoolaat ko ñu ne loolu am na. te loolu du du ñun du ñun mais xamal la Pikinois yi noo mënu mu leen nii Ama Baldé noo mënu muñ yenn injustice yi ngay def yenn yi muy subir mais bu ko neex Ama Baldé bu ko neex mën na faral Sonko man maa ngi nii man moo bokk kër gi bokk lépp te man euh, Macky Sall laa xewal te pourtant benn problème amu si dañuy conjugué muy ree tàpp ma ne ma waaye sa waaji du waaja ma ne ko yow tam sa waaji du waaja ñu waxtaan ñu ñaar mais animosité amu si léegi la moo tax nu bëgg ko léegi euh, jàpp ni ñëpp di ko sot ndax loolu mais am na droit faral ko neex ah. il est libre c'est un Sénégalais il est libre waaw te et puis tamit vraiment man moom franchement parler magu Pikine ni li ñuy woote da nga ko war a di dëggu muy dogal muy ñëpp ñoo xam ne ñu nekk si làmb ji la doon war di dëggu munoo ne kii sama doom la man papa ma def man a Fallaye pa Fallaye na ma koy yóbbu auto oto ande. ànd mu dem ba kër dogal ne day seeti dogal te boobu mi ngi feebar maa dawal auto bi di dem oto gil gil bii la woon nu dawal ko ba mu dem ba seeti ko fekk ko fa mu fekk fa yaayam aana aana dalal ko mun na ko dugal de dafa génn mais comment dire su ñëwee naa ko lii de kontaan naa si trop affaire dama ñoom jàpp ñoom fay benn la ko te ko jàppee li mu ko ko jàppee ko jàppee mais ñoom nag ne situation bi na ak lépp lu mu demee kooku bi mu ñëwee waroon na ñëw nemmee ko paa bi xam lan si leneen parce que mag moo mais mi commencé def nag ñun nag ñu ne assez quoi tandis que dëgguwunu nam bëri suñu biir nam bëri nam bu booy ñaa pare si combat bi mën na ko jël bëri ak moom bëgg tas na tas parce que Siteu amu fi dara amu fi te ñun tam duñu d'accord suñu champion lu teg ko fee sa pare liggéeyante keneen pare di ko liggéeyante muy nekk en retard donc ba mu génne wax na Pikine 100 pour cent bi dëgguwul Pathé wax na ko yow nga ñëw firdi loolu mais Pathé boobu sacrifice la Pathé ko li ko gàllañ kon gis xam ne lamb mbër fii nii la woon ñoom Gris Bordeaux ñun accompagné na ko euh, comment dirais théâtre de verdure ba pare mu daan fi ñëpp dem Fass daan fa ñëpp Gris Bordeaux bi def na ko lu ñaaw ñëpp di gis ah bafal gën bu yóbbu mbapat muy def lu ko neex si lamb ba tey ji booy bu ñu taxawee nii ñàkk entraînement am sax da leen di daan mbër tamit ko def ko li nga koy def ba nga xamee léegi comment dirais gis nga ni mu demee te na barki Seydina mu xam ne paate xam koo gis nga xam ne c'est pas le paate ko sacrifié non Pikine bëgg noonu mu génn bëgg noonu benn doomu Falaye Baldé génn fi ba si Gilles da doon subir affaire yooyu Papa Baldé da doon subir affaire fekkee nañ ko boobu dugguma sax si kër bi mais nu ngi xam li xew si làmba ji kon nag yii ase kii moom ku ko nar a laal suñu bakkan lañ si teg barke Seydina Mohamed. mais Ama euh, mu carrière am ñu toll nii parce que Ama roi des arènes li ne da ko waroon téye mais loolu roi des arènes mu ñàkk dem te carrière am booy xool tey naka lay déroulaatee ak ndax gëm-gëm bi dina am ndax yéen ñi ko wër aussi muy muy nga xamante ne yéenay goroom yéenay estafam tey jii amaa la ngeen koy conseillé ak la ngeen koy wax pour mu gën a am redoublé d'effort waat takkaat ngémb le takk jaaj yi ñëwaat ci làmb ji. man daal li ma koy conseillé mooy na delluwaat entraînement yi mu doon def delluwaat avec un mental très fort bañ wax nii rek di consommer affaire bi mu koy mu koy mu koy déranger royal am na ama naa que 34 ans il est de 90 léegi nag dese na ko lu bëri si làmb léegi nag li ko dese ci lamb yeb su neexee yalla roi des arènes day tourner Modou ko loo xoon tey jii roi des arènes doko gem gëm léegi day tourné parce que tamit adversaire yu bari même su bëriwul ak ay doomu di balee sax su bëriwul ak euh, ñenen mais day tourner léegi bu tourner ñun mom roi fu mu nekk na ko jëli su neex su borom loolu lan armé wu armé ko def ko galvaniser ko sunu sunu su su su su sunu suñu mbër te fu mu nekk ci aduna dina ko jëli parce que duñ d'accord que yéen yi ñuy ñàkkaloo yéen détail wala yéen affaire moom duñ ko d'accord ati mbëri moom ko laal su mbakkan lañ teg franchement parler waaw. jotul aussi sama xel bu gàtt mu génnaat dem à l'étranger deflaat yaramam di récupérer a yaram bu baax soo ko ñëwaat si làmb ji est-ce que loolu te mënul ne. non loolu mën na loolu nu ngi si suñuy xasum borom parce que loolu waxtaanu kër biir néeg la xëy na peut-être du waxtaanu presse wala du waxtaanu dara mais dinañ nekk en conclave. ba nga xam ne loolu dina si réunir te dinañ xam tamit ni ñuy préparé suñu mbër waaw bu dee am na ay manquement yoo xam ne certes moom manquement mënu ñàkk si en matière de sport mais manquement yi dinañ ko jéem a def la tout ba jël gab indi ko te incha allah rabbi dans le futur bu bu bu bu récent di nga gis ni gis nga encadrement bu normal ak kii tamit te dina assainir yu bëri yoo xam ne désordre yu doon am la dinañ ko dindi incha allah rabbi mais dem gisoon Ama bëri mais Ama lu mu bëree yéen ko ko sant wala lu mu bëree tey consigne la bëree wala lan la bëree. non dem moom franchement pare doo comprendre ñu comprendre man mënu ma ko ma astafurlah man personnellement ça m'engage mais mënu ma ko réaliser. parce que tamit euh, ñëw préparer sa lamb ba tool foofu te ama forum la ko Modou Lo euh, la ko Modou Lo euh, la ko Modou Lo indi bi mu ñëwee dóor ange boobu da ko man bi mu ko dóoree ange ba mu ñëw ba mu ñëw li ko rëcculoo ba nga xam ne loolu am na si ba muy ba muy ba muy déclenché mbot bi bay loolu di am man je me retrouve plus. mbot bi ñorul nag. waaw loolu dëgg la moom c'est euh, erreur la foo côté boobu moom d' accord naa peut-être yenn saa mën na la gën a mën si affaire yi xëy na peut-être poids lourd li ngay mën a réflexionner pour jóg poids léger mën ko mën a bañ a jógee comme noonu loolu day am mais aussi tamit forum mooy bi Modou Lo sukkee Papa Sow noonu la ko defoon da ko àggale rek mu jeex mais doo comprendre doo comprendre la moo waral lii am. te xeex moo bëri ci moom te boobu tamit Modou loxo baa ngi ci ngembali ba léegi bàyyiwul même su bàyyiwul woon su bàyyiwul woon ama li ko tiim noonu ak euh, centre de gravité aama Modou loo mun si woon génn mun si woon génn loolu moom ama xam ne ni forum la loolu ko mës a def ku ne ama gars yi ne man bi ma defee laa ne lamba ji jeex na ma gisaatee affaire yi jógaat sax laa ne mais qu'est-ce qui se passe lan moo waral ama peut lii am wala lii am mais doo comprendre man moom merew ma ko si benn côté li ma koy sant mooy na delluwaat si entraînement am te ñun nag li si war si côté am pour gën ko jàppale dinañ ko gën a jàppale te bu dee tamit lépp lu ñuy wax loo xam ne lu koy jëriñ la ak ñu koy demale kanam dina ko def lépp lu koy delloo ginnaaw dina ko delloo ginnaaw dina ko jël teg ko fële su neexee suñu borom jël si ay yoo xam ne dina tax bu ëllëgee te roi des moom man maa la ko garantir incha allah rabbi fu mu nekk fu ne dina ko jël su neexee te Ama Baldé dina nekk roi des man loolu laa gëm. mais boo ñaaw bu daanee Modou Lo nekk roi des arènes da ngeen jël boo ñaaw bëri moom. ah bon bañ jël man de bu ma toppee jël ko. non bu ma toppee jël ko sincèrement parce que dëgguwul na bëri su ay millions la léegi yow booy rus ay millions di wax nit ki sama nit la nit sama lii la muy dëmm di la jaale. mais dina doy waar de. tas Pikine amul 100 pour cent la yoo xam ne 200 pour cent 5 pour cent nekk fi loolu moom maa ko wax j'assume ku mu naqari koy ku mu déranger c'est ton problème. bu nekkee ñëpp war na regroupé doon nekk benn su mbër ayee lu combat lu tol ni comme dayoo combat royal ah loolu wa Pikine yep ci wara tassé tourner autour de l'essentiel jappelé mbeur mi xam ba mais diko ko ay dem ak ñen ñoo xam ne bëgguñu mu daanu parce que bu daano ñom du nekk ci roi des arènes mais boña non la def bëgguloo ama daana sincèrement parce que bu daano tay ji roi des arènes roi des arènes bi da échappé te ñi tamit jël combat ngay dem di waxaale combat ci souf tamit rafetul bu doon ama yi boy ñaa jëlun combat billahi wallahi wa ta'ala mu ne na Boy Niang bëri ba pare doo xam lu may def mais Boy Niang di jël combat may jël combat te même nit bu ñuy adversaire lay am loolu rafetul presse bi sax déploré na ko kon loolu amati na 200 pour cent nu retourné naat encore muy def open presse pour combat royal lu toll ko dayee comme combat royal lu ñëwoo léegi koy affaire boobu animé ko animé na papam su bëggee su pare si combat yi ko promoteur bu ko dox nu ñëw ñu jël ko man ah man la engagé promoteur bi ngay tëgg nag mooy coow li non da nga koy yoo xam naa tëgg de loolu yow loolu jafewul de yow mën naa tëgg de lu yomb a tëgg la nag waaye parce que dëggul kay lu yomb a tëgg la am problème rajo bi ñu ngi presque xam naa dañuy tàggoo rek euh, li nga xamante ni mooy euh, ñëw nañu Pikine tey gis nañu pikin tey macha allah mu nekk loo xamante ni dañu ñëw dugg biir Pikine Pikine bi yëpp ni tekk ñooñu en face kër gi gis nañu kër gi gis nañu ñu toog si buntu kër gi ba léegi am na supporters yoo xamante ni gëmuñu Ama daanu na boo leen xoolee ñii gëmuñu Ama daanu na kon tey euh, looy wax supporters yi looy wax dëkkandoo yi looy wax waa Pikine ñi nga xamante ni ñoo doon supporter Ama Ama ñàkk bi dem man daal les dignes les dignes fils de maa ngi di gërëm di leen sant gërëm bi di sant mooy sonn nañ si combat bi trop trop man dama dem ba mu ci damay gërëm nit ñi ñoo xam ne 3 heures du dañuy fanaan kër ga may jëllu sama kër man tëdd nelaw ba yeewu ñëw gisaat leen loolu dafa metti loolu kuy nit day metti nit ki ñu ngi gërëm waa Pikine yëpp nag ñëpp ñëpp ñëpp di gërëm moom Mamadou Guèye vraiment jàpp na si affaire parce que xam nañu c'est un digne fils pikinois jàpp na si di gërëm tamit Issakha Diop le maire jàpp na si moom tamit dëgg Cheikh Tidiane Thiam te nga xam ne moom lay àndal di politique jàpp na si dëgg vraiment nu ngi gërëm ñooñu nga xam ne ngi ñooñu da leen gis si acteur politique yi nga xam ne noonu nekk Pikine ñu jàppale Ama à part gis ñu si kenn waaw à part gis ñu si kenn le maire Cheikh Diop tamit jàpp na si combat bi tamit ñu koy gërëm mooy bu maire Pikine Ouest malgré suñu adversaire amee tamit nit ki tam bu defee lu baax wax ko man loolu laa xam man politique ma xaw ma si animosité di xeexante wala affaire demee noonu nit bu defee baax ma je t'encourage bu deful ne bëggee parce que commune bi Pikine ñun noo ko moom c'est le département il faut ñu construire ko defar ko li nekk benn affaire Pikine daal maa ñëpp di leen gërëm ñoom ñëpp booy gis naa leen si te bi ñu demee ba ñëw combat bi tamit vraiment soulagé nañu parce que taxaw nañ ne ko ñun yow leen gëm yow lañ am yow lañ def nii yow lañ def nii kon nag xam nga ni jeunesse Pikine teg nañ am foo xam ne tegi nag loolu nag ku mu dérangé yàlla ko def yàlla moom moo liggéey wan nit ñi yar wan nit ñi euh, kii ba toll fii kon nag bu tollee fii ba nga xam ne ñeen ñu ngi ñu si tàng xol moom la am na ñoo xam ne tamit aussi dund dund ay référence à Pikine ay mag ñoo xam ne du te buñ la taxawoo parce que ñun xam nañ leen Pikine lañ dundandoo bis bu nu taxee wax nag dina wax loo xam ne si presse euh, ñoom du du ko réaliser sax te ñu xam ne ni dund na ko nu dund ko ñun xam ak moom nu xam ko nu leen di gërëm di leen sant yaa man nu leen di gërëm di parce que mosuma wax si presse mais dafa am loo xam ne lu ëpp tuuru dama ñu ñu tëj sax euh, tey euh, ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé tey ba muy taxaw si làmb ji démb li ñu wax si làmb ji balaa ñu tëj dañu gis benn action boo xam ne dafa am Modou dafa taxaw am benn boy Ama Baldé am lu ko sànni mi jëlu mais dañu gis Moustapha Gueye sànniwaat ko am fi nga xamante ne mooy ci kaw Ama ko Ama Baldé wala booy mu ko sànni loolu man loolu daf lan lan sànni ba Moustapha Gueye jël ko sànniwaat ko loolu. non loolu li amoon démb dafa extraordinaire. loolu commencement la woon si film bi rek man jàkkaarloo bi ñuy wax TFM sa fama jàkkaarloo la li fa amoon amuloon fenn ñun on avait dit que TFM lañu war a defee jàkkaarloo bi deux personnes war a pour mbër mi ak ménager bi ñoom ñooy ñëw amul accompagné amul dara. mais ma dem ñoo ne ndekk tey cosaan soo ba tey gaa yi fay sangu di def lu nekk pour miné booy bi booy bi fu mu dem fu ne danga nga koy bëgg a def léegi nag il le fallait tamit euh, am yenn yoo xam ne téewoon na suñu mbër tamit ci ay raisons yoo xam ne yu normal la moo tax ñëwul si jàkkaarloo boobu parce que jàkkaarloo booy li ñu déterminé woon bu ñu demoon cosaan danga nga koy toj te ay moor mun na fa am te loolu làmb jaru ko ay promoteur bu ñuy tëgg bu la neexee mu nga faral nit ki mais bu faral ouvertement ñëpp di ko xam Luc Nicolaï je le déplore bi mu fi amee problème ñun ñëpp taxaw ñu ci kaso ñun ñëpp am problème jàppale ko sotle ko kon moom bu mbaa amee ba nga xam ne ama am na warul di féete ba ñëpp xam fu mu féete ba pare wax. mërëm mooy Modou Lo nga jàpp. dafa wax jëfur na si wax si man Modou Lo on s'entretient dama relation am na kii sama sama nit la sama lépp la te ngay bëri nit ki ba pare engagé ko engage ke defe naa ne war nga war nga tëddee njaaxaan naay xam ne kii nga fay nii da nga fay keneen ki mais def ay saal bulu yoo xam ne kenn xamul lan la ah dégg naa sax ay ñi nga xam ne dem stade ñii nga xam ne tamit bokk na si daanu booy bi mu leen def booy def leen dara booy bi c'est un dix digne fils pikinois bu jóg am jom am fayda takk euh, fulaak fayda yëpp di bëre boobu ba léegi 2012 ba léegi daanoonu bii lay am jëli te bii kenn comprendre ko te bëri nag ñu gën a coréage Modou Lo Modou Lo dem mu taxaw mu taxaw xam ne physiquement noo ko gën a taxaw mystiquement noo ko gën a taxaw bu dee public noo ko indi si stade bi bu dee yëngal stade bi noo ko indi ben benn détail bu ndaw bi daan Modou Lo kañ la mos béré ba félicité la daan la félicité la di la congratuler de taf ci ko mak afena gëmew ko bu ñu fi victoire dafa yuuxu noonu la ñu jox victoire dafa yuxu ci far bi te sen challenge bo tamit sen jëri def tam war na ko xoolaat parce que mu Lo di àtte challenge nu lay wo quatre fois téléphone yo xamé ci challenge Babacar. Babacar arbitre la. Babacar arbitre la xamna ko. léegi da nga gis ñu wo ko téléphone. mako gis quatre fois quatre fois mu wuy téléphone. avant verdict avant verdict ma ne est-ce que si ay pression moo tax ñu wax ko ko pour mu joxe décision pour pour pour rendre décision bi jox ko Modou Lo lu lamb ji ni la doon gis diko ko suivre man lamb chaque jour suuf lay nek mais problème 4 appuis bi avant boy bi di ñew waaw avant def na 4 appuis. waaw léegi avant mi ñew avant xam charge bi nga xam ne booy bi def si kawam tax na euh, affaire yi gëna a leer mais boobu fekk na mom 3 benn tank maa ngi suuf parce que position bi mu taxawee woon 4 appuis mënu am parce que fekk kii la après si la am nak ñun ku daan ku daan da lex na daan nga. félicité-leen la kii la duñ gàkkal daanu daanu jàmbur parce que nous sommes sportifs ñun nous sommes armés de sportifs ama ko xam ne c'est un bon sportif démb ni mu génnee stade bi grandeur la dignement la génnee stade xam ne dañoo am ay bis di kii tey nag yàlla nii la ko joxlee jox ko lii mu sant si yàlla bu baax nag ba ma ñëwee di ko wax mu ne waaye jibiri mën naa mën a affaire yi noonu la mënoon demee xëy na peut-être noonu la mënoon demee man tam encouragé na ko affaire yi ñëw mi ngi si kanam na gën a armé ba pare am yeneen bis yu ñu préparé ak yeneen bis yu ñu préparé

ñun moom ñu ngi si mi ñun ñu ngi ji mm-hmm. mais eh, euh, supporters yi ak ñi xamante ay ay ay ay mm-hmm. ñi ne ay ay ay ay nit ñoom dañuy wax si làmb mm-hmm. dañ ni Ama balde a des kon yéen ñi nga xamante wër Ama balde war ngeen xool Ama balde bi ko indi ko ko à euh, xam nga tamit il n'est jamais parfait mais combat bi jangal na lu bëri te su neexee yàlla limu mu ngay wax ci encadrement ngay wax ci lépp su neexee di ñen ci tok en conclave waxtaan si ñun responsable xëy peut-être lolu waxu presse duñ si mëna avancer trop pour wax ci parce que xëy peut-être li ñuy wax ni sax da doo xam il faut ñu wax parce que tamit c'est la vérité té mënu continuer té dafa am beneen bis bu ñuy dëkk moo xam ne day ñëw té bëgg na li répété woon répété waan mo tax ñu wax ci ni Pikine li ñuy woté na amul amul parce que mënoo am ni toll bis bu toll nii nga toll si say nit nit ñi lay war a jege nekk mbër comme yow ñëw nu jàppale la déggoon wax fii euh, comment dire Tidiane moo fa ñëw doomu Pape Diop la ah tamit euh, tamit ñëw na démb boo gisee état xam ne kii da ko galvanisé c'est un booy ma estimé la si si affaire yi demee na Ziza tamit bi mu daanee xoolal subir na policiers yi di ko téye mu daw ne bu yow yéene Pikine yëpp yéene booy bi jàpp fraction de seconde rek loolu am loolu subiki loolu am te kenn xamul lan la te kuy xam Modou Lo xam ne Modou Lo du na ko Eumeu na ko ñëpp ak ñëpp a daan bi léegi daan na Ama Baldé parce que bi ñëw si laam sax la fa ñëw ak a pare ci que Lo mystique ay biteel keneen la doon sottee kooku ak yooyu ko benn gaa laaj wala ko benn gaa parce que demal si moom parce que nee nañ ñu fa bëri ay parcelle la maire yëpp noo te et euh, Ba tamit vraiment tamit war na war na tamit yenn yi tamit koy def du jàppale ne man kii fii la faram jàpp parce que aspirer pour diriger ëllëg Sénégal kon moom tamit war na toll ni ñëpp bu mayee kii billet war na yëkkati wala may kii xaalis pour mu préparer war na yëkkati jox xaalis pour mu moo gën a rafet parce que ñun ñëpp Sénégal noonu ñoo ko moom te ñun noo ko moom te ëllëg tamit ñu ñëpp noo koy jëriñoo waaw kon nag yi lépp na nga ko rafetal rek na ko def dans dans l'art boobu ba ñëpp xam ne bu ku nekk Sénégal nii li ñuy wootee li carrément loolu am na si loolu am na si loolu daal vraiment man naqari na ma trop trop moo tax ma ne ma wooye ma ne il faut mu woo la comme yow tamit vraiment man yow xamante noonu te si presse nga yëngu ma ne il faut moo utiliser boobu foo jaar ma woo yaat moo ko far fi ma lay wooye juste ngay ak si si kër ga voilà vraiment grand ji bi euh, te loolu am na solo li fi suñu tamit am na solo mais ñuy wax nii ñu ngi toog grand ji bi di goro ci amaa balde tak magam euh, mu nek lo xamanteni dem combat capital la woon combat royal la won mais nak Modou mo mo mu jël ndam li comme lu wax Pikine dégg nañ ko lu wax si amabel Baldé nañ ko mais lepp fi lay xewee si biir Sen TV en direct nga am ko mi jaar sama jënd cameraman gàmmu l'infatigable di jaar Aladji Malick fay aussi l'infatigable di jaar junior bu nek ci région bi ak kep ku nek seen news ah, bëgg naa la di bëggee képp ñu san nak diaspora bi ah, bàyyiwunu kenn wa Saint-Louis wa Dakar kep ko xamanteni ni ngi ñuy ñu lay bëggee lépp nag fi lay xewee si biir SeneNews TV xam naa dañuy doxal après incha allah dafa xool yeneen réaction incha allah jërë ngeen jëf benn yoon incha allah grand ji bi merci beaucoup. ok merci beaucoup merci.